man je suis peur là. man de bi ma gisee président mu leen di mettre en valeur ñu koy poser question muy tontu naan. nous avons des homosexuels chez nous. man ma yaakaar le président xam naa day kaf quoi. ndaw si insister président confirmé ne. des associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal. la possibilité de faire campagne par Bien exemple. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Sans aucune difficulté. Ah, sans ça, je ne sais pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement. yaa seexul Ibrahim Baba Lamine Diassé. man ma foog ne foofu lay yàq. te di ci débat site internet di ko reprendre. man ni ko reprendre lu baax. foo fàtte jigéen ñi leen statut nag. yéen lu yéen yéen yokk danger bi. dem na ba sax kilifa yu bëri yu nekk ci dëkk bi ñu ci bëri nanguñ see wax. daal loolu yéem na ma moom. ndaxte koo si wax waaye yow doo wax si góor jigéen mu ne la. si bi ñaay mi ne saytaani rajo mi yooyu du ma ci wax tey di ma ci waxee léegi. pour ñoom buñ ci waxee rek góor jigéen yi sosal leen nan leen. ah may doxaan. Bang may phone bang may bisu man nak na ma góor jigéen wax mako doxal sax man bañu ma ci dul waw na gor jigen taxaw ne zala ma eumbal man hmm? ah Awi, me bo waxe rek ñu naan la yii booy bul wax ci gor jigen bu laal fofu ndax bo waxe da lay sosal de sosal len ma wax len de man zal maa leen doxal wax len lolu yow lan moy sa problème xana xamone ne man baatu gor jigen rek lay bañu deg gor jigen dafa jarax xam gor jigen rek ñoo yok tax dëkk bi dëgër gor jigen ñoo taral town bi mo tax town bi metti kon tant que góor jigéen bi. Sénégal trop trop rek lay dëkkee. man découragé naa nag sama àdduna. xanaa xamoon ne góor jigéen baaxul mën bi dabata ci biir réew. lan. borom ñaari turi mën na indi tremblement de terre. xanaa xamoon ne borom ñaari turi mën na indi ngelaw mbugal bi daaneel ay immeuble. nga ne. day indi feebaru sida. góor jigéen mën na indi sax choléra. Ebola yi xew. est-ce que góor jigéen indiwu fi corona sax. Hmm? ndaxte pétrole moom la dëkk yépp di ñaan pour am ko. te lu ko dëkk bëri la bëri la. borom ñaari tur yooyu mën nañ ko yàq ci ay minit yow ngay góor yàlla nga war a def sa bopp góor yàlla tëgi mais saa ñu waxee rek ngay orienté sa yaram naan. Eh. te li ma gën a sot ci ñoom nag bi ñuy wax di fukki seen fàmm yi. Eh, lii dafa désolé waay. <laughs> waxuma laa góor jigéen sax mais góor bu jigéen jigéen rek yàlla da koo sib ci diine bu mu mën a nekk nag. asuma laa góor jigéen nga dem ba sekk ak moom yenn affaire yi. partager di leen statut di leen may buzz. ab dooméeraam loo ci may buzz. te chaque jour nit wax loo xam ne daf ñuy ñu fii ak fan jëm. du ñu leen aimé du ñu leen statut. te li ma si gën a métti nag buy statut borom ñaari tur yi naa diw. mbete ku statut lu baax xam naa dañ leen a bëgg a mettre rek. ab góor jigéen loo ci mettre en valeur. man de jël ab xaj di ko mettre en sax moo gën may yëkkati góor jigéen di ko mettre en valeur. ndax xaj sax a moins dina la gardeel bu gisee ab sàcc daana mbow wow xaw xaw mais bu ñu waxee rek góor jigéen yi mel ni ku yor machine wal naan ba man moom sama problème lenn rek la en tant que góor ak góor ngay tëddee sa morom góor loolu dafa ñaaw ñaaw trop la def ak ni jigéen ñi bëree ci dëkk bi bu benn góor amoon quatre femmes ak benn takkoo tamit bu tax jigéen ñi doy dëgg du rombi nopp mais yow yàlla sàkk la defal la benn pièce ak réseau plein appel bi di doxantu fii ba Zimbabwe. nga na xeeb naa boobu yow nga dem jëliwaat beneen pièce monté ko fii. nan da ngay appel. waaw piis ba ca ginnaaw lu ci yoonu boobu piis. moom ak yàlla. man damaa xamul góor nan la mën a wëree nomba mënoomu góoram sax laa xamul wër nomba. nga sëgg naa ki nii. eh papa. ate ayo dis ba ayo ak yow li nga yor ni mu neexee yow nga ne ko fa ñukk dem di jeexe góor jigéen ñi nañ dagg seen koo ci digg ba. tapit. ah. ah man de d'accord naa si tasaasal bi ndaxte lii yëfi xaj la. xat gay gis mo kott morom xajam nako wala sax yefi beuy ak beuy beuy nako lolu beuy ak xaji ñokay def ay doome rami seug di juutok di wangentu man ay mbami jigen man nak amna lumay ñaaw ñort limay ñaw ñort moy gor jigen est ce que amul ñu nek sen ginaaw di len dolel ndax bo ba ken waxul nak ndax te senegal mom legui gor jigen amatu la xatu bu ñëk ba nak amon nañ ci kersa da ngay gis ku genn sax nan ni nga ne waaye xoolal góor jigéen bi. mun ma ah lu ci ne. nga ko lan mu la. lu ne ci góor jigéen. nga bëgg a insister toj lu bonam mu naan la. aywa ah, bëkkata. bisimilah. def onaar gaay. aywa génn leen wax ci góor jigéen yi ñu arrêté. ñeme leen am fett génn. man de du ma ci tudd turu góor jigéen mu naan ma ay la ma zaal wax. la ma lii la ma lee. tudd sa tur ngay am bës. Hmm? waaye damaa généraliser sa seen ku si gis sa bopp rek. yaa ngi ci biir. ku ci sentir ne zaal yoo lay waxal rek. yaa ngi ci biir. loolu danger bu garaaw la bañ na ko ba yàlla mi ñu sàkk sax bàkkaar boo xamante ne ni bañ na ko ba du ko tudd dafa mel na ku ko seexlu ba mu koy tudd ci alxuraan sax dafa ne yéen góor ñi ndax sañ ngeen jigéen ñi ma leen wutal ngeen di leen fi bàyyi di dem seen moroomu góor yàlla sax moom affaire bi moom ci boppam da koo tiital est-ce que nit sañ na ko man damaa xamul lii lan moo fi jar adduna bi jeexagul na góor ñi doon góor takk ci jigéen ñi dama xam ne jigéen na mu neex ak na nga ne ko fi ñukk nan nan makoy remplacer. mais c'est ya honte. ak li yalla wax si gor jigen bo dewe safara nga jëm. yow nga na dem safara grawul ak rajan max rajan. xanaa xamoon ne ëllëg yow man xiyam bu embouteillage naree am fofu gor jigen ñi la man de kenn tardel onnar day xam nga nak man mom lan moy sama problème ëlëk buñu démé fofu bu yalla waxé ala gor jigen ñi nañ yëkkati seen loxo ñom nan lay wara def légui léegi. wul sa loxo ma yëkkati sa loxo ndax sax na la yaa dégg na ala yomal xiyam am na góor bu ne Euh, day jël saagam daagu romb yàlla dugg àjjana. yow bu la yàlla bàyyi dugg àjjana may fekk sa ndey àjjana génn war la ndax foofu du sa place. ay bala gën a am loo métti nag man ñu naan Sénégal dafa bokk ci dëkk góor jigéen ñi. loolu Sénégal nekku si de parce que ñun ay Sénégalais njiit yee si ne. dëgg du romb nopp. ndaxte fii yàmbaako ko fi jaay. dañ lay jàpp. dorog dañ lay jàpp. ku fi rey nit. dañ lay tëj. góor jigéen ñi moom. liberté totale. loola neex wax. loola neex def. ku la neex saaga. kula khas, khas yang ku yak dram kenn du wax. way li ba tamit. moma jaxal yi nañ ci wax. parce que li mom jekkul jaaduwul quoi. man nak lool rek la aw lu ma wax. man de li la wax. ngeen wax. Ah, man ñun li nañu wax do ngay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu ko defé ñu baye ñaan ba benen yoon.